ñu ñëw ci nettali juróom benn fukk bi ak juróom ñaar sëriñ Babacar Sarr la taala anhu mas nay tëgg jëm ci sëriñ Tuubaa xaadilahu la maxtaarilahu sëriñ bi ni loolu lu mu ñu ne ko Babacar Sarr la mu ne xëy na bu ñëwee wax li mu ci jublu bi mu ñëwee sëriñ bi ni ko Babacar Sarr loo ci jublu mu ni ko da bëre ba daan te bàkkuwoo ma muñ ko mënuma koo muñ may bàkku sëriñ bi ni ko danaa bàkku waaye daa jotagul sama dëkk bu ñu naan Touba ak sama jumaa ja laay bàkkoo siiw na sëriñ bi xaali lawloo maxtaara lawoo dañuy leeral innamal a'maalu binniyaati wa innama li kulli imri'in maa fa man kaanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi wa man kaana hijratuhu liddunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma haajara ilayhi sëriñ Babacar Sa radiyallahu taala anhu xam ma lan la ci jublu lan la jublu ci bàkku waaye xam naa sëriñ bi moom xaadalahu law maxtaar la woo sant la jublu ci bàkku sëriñ bi itam bu ñu xoolee xam ni bari na lool ay kiimaan waaye dëkkam bi ak jumaa ji ak mbindam mi ak doomam yi ñooy kiimaan yi gën màgg ci moom dëkk bi bokk na ci ay kiimaanam jaamu fi benn fan mooy tolloog jaamu at feneen ci ni mu ko ci ay waxam bindam yi itam lu mel noonu moo ci nekk ndax léeg-léeg nga gis xasida gu gàtt mu wax ni jaamu yàlla lu bari la ci ay at jaamu gu nu nangu loolu nag du dara lu dul coobarey subhaanahu wa taala ndax yàlla mi digle woon ak julli ak asaka la sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo daan waxal ak jëf leen teel fi mu ne boo yoree mbind sëriñ bi xaadalawoo law max boo yoree mbind sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo li ci ëpp day wax kataballahu tabaraka wa taala sunu borom bind na ni nangam ak nangam ci man xoolal falaaxi bi fadlillahi fi lawxihi jara bi xayri mixaa'in duna makrin wala xawfi xoolal it kataballahu tabaraka wa taala anna baytallahi alxaram ترفعه الملائكة إلى طوبى وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمين وحي الله ويدخل فيه ما هما كاتب عن الحروف مع جميع الكتب والأمتعات إلى مح إلى محله الذي يكون معهم فيه أي المريدين الصادقين nga xam ni kon sëriñ bi li muy wax lépp lu ñu ko wax loo lay doon mu koy wax lu ñu ko bind loo lay doon mu koy bind yal nañu yàlla dimbale ci topp ci ginnaawam bàyyee ko suñu lépp te koy liggéeyal walaw alam